déedéet affaire bi bipolarisation bi nga xamante ne mi ngi fi woon depuis deux mille dix neuf ba tey mooy continuer. Sonko Macky. kese te boo xoolee validité candidature yi ci loolu lay continuer woy ndax. Hmm. oui gis nga euh, ci parrainage citoyen bi. Hmm. Amadou Ba na ko déposé set du jàll. du jàll. moom ca maire yi la maanaam voilà fu kenn demul nag. Hmm. <laughs> député yi sax wóorul ci moom moom ci conseil la dem bu demoon ci parrainage citoyen bi. 4 hmm. million yooyu dina xam ne. Hmm. saa yi. Euh, Cheikh du Mbacke Baara doolu moom euh, gis gis naa ko xam nga Cheikh Abdou Mbacke Baara Doli ñëw na fii nii. wax ak ñun euh, que ni dem na déposer ñu ne ko 12 moo ci baaxul. ci baaxul aujourd'hui il est venu ñu ne ko ñaata moo ci baaxul. Ah, voilà. et eh, eh, eh, bon euh, je pense parce que euh, boo ko déggee ni muy waxee hmm. am na frustration parce que euh, xëy na def na ci énergie def na ci alal def na ci temps et hmm. tout hmm. mais jàpp na ne président Macky Sall moo bëggul ñoom doomi daara dem des na yeneen i doomi daara xëy na yu nekk ci kanam ñu ngi xool mais mais mais mais mais tu as vu Cheikh Abdou Bara beaucoup plus radical que ko doon xamee waaw ah mais frustration bokkul ñàkk a bokk donc bu def doon def benn pour Macky daanu moom xamal na tey dina ci def dix. parce que lépp moom la koy sipp. no sipp na ko ko ba pare. oui euh, alors je l'ai vu sur un live. Euh, comme quoi maanaam euh, clé USB bi ñu la joxoon ca DG dañ ko modifier bi ñuy mun ñu ko exploiter. mais j'ai vu ça aussi ah. j'ai vu ça loolu tamit dafay am lu muy findewaal ci le cinq. Ah. ah waaw bu dee DG moom moo la jox lu baaxul. moo la jox clé bu am problème. moo la jox clé bu am problème wala ñoom di modifié clé man maa woo Mamadou Yatasaay. mel mi waaw. waaw mu ne moom dafa dem ñu ne ko bañ ba euh, fiche bii nga yor bokkul ak bi CDCD ba. bii DGE di joxe ma ne ko léegi kon lu la wax mu ne nee nañu mu ñëwaat la cinq kon. pour ñu revérifier waat. ah kon bu cest à li ma ci jàngatee. parce que man la cinq laay calculer <laughs> kon li ma ci jàngatee mooy ñàkk a yor euh, fiche DGE. Hmm. ce n'est pas un motif de rejet systématique. mais moom li la Mamadou Yatassaye. moom moom wax la ñeneen ñi la wax. man loolu loolu la may parce que loolu la danaa mënuñu ko expliquer. parce que dama gis communiqué wu euh, conseil constitutionnel. mu wax kaawu Yatassaye wax euh, kaawu euh, un certain Guèye. waaye mooy Modou Guèye d'ailleurs sax Malick Guèye. Malick Guèye Malick Guèye mais mais foofu foofu bu ma xoolee bu ma xoolee communiqué bi ils n'ont pas dit que ni dañ leen a mujj ñu leen a visiter def mujj ñu leen a contrôler maanaam clé bi ñu jotee fële dañ ko modifier la noonu. léegi bon. c'est comme si modification boobu noonu. waaw ci ñoom la ñoom en tant que candidat ak ñi ciy liggéey. mais mais mais pas mais mais attends Mamadou Yatassaye qu'est-ce qu'il gagnerait à ce que ñu jox ko fiche parrainage je pense qu'il avait les fiches 120 euh, mu modifier fiche yi ban sens lay am léegi comme nee nañ ko na ñëwaat le 5 man jàpp naa ne donc kon euh, ne pas avoir les fiches telles que euh, yi ko DG di joxe. Hmm. nekkul euh, un rejet systématique man ma euh, dama woo Yatasaay et il m'a expliqué ça il m'a dit que ni rejeté wuñu ko dañ ne ko dañuy waat le 5. peut-être na ma jaaxal ci loolu alors que man ci yee ngay gis. man tam suñu invoqué motif bi liñ ciy teg mooy. Hmm. invalidé. ah en tout cas man daal euh, quand je l'ai appelé pour vérifier l'information c'est ce qu'il moo tax experts yi ci pàcc bi il faut ñu dimbaluñ ci ah. waaw mel ñoom Ndiaga Sylla. non c'est-à-dire ah. lii du. du lii effort parce que. waaw exploitation fichier la nu ñuy wax. et c' est c' est mbir mi. yéen ñiy dem conseil constitutionnel est ce que xam nga ñan ñooy nekk ci vérification. waaw dafa am commission oui euh, mooy ci conseil. commission waaw dafa am commission constituée de. informaticiens voilà. alors ñoom li ñu def la supervision kon de. du conseil ah, te lépp lu ñu def sax implique le conseil. mais léegi laaj bi mooy. te maa ngi conseil bi am nañu. am non non non jumtukaay yu ne. Badio Badio Camara n'est pas informaticien. il est comme moi xamuñu doo bëri ci informatique droit la noo xam. te lii muy lii lii ñuy def nii ça reçoit la connotation du conseil constitutionnel. justement loolu laa lay wax. conseil constitutionnel moom mooy signé euh, les co bon maintenant euh, am na commission am constituée d' experts en matière électronique et autres yu leen di rendre compte. mais justement loolu laa la parce que du du, du logique kon boobaa. ah en tout cas jusque là jusque loo xamante ne ay ay informaticiens ñoo ci nekk di ay borom xam-xam. day am te yéen amu leen lu leen mën a permettre ngeen mën a xam. ñii yaa ngi wax maa ngi wax ki nekk ci réalisation bi li muy def xamuñ ci dara <laughs> luñ ci xam. ah non photo yi muy indi luñ ci xam. non non non de la part de qui mun de la part de qui. non Badio xamul informatique. waaw on est léegi day dem recruter ji ko xam informatique. justement kooku euh, sur la base de confiance bi leen lié li muy def moom mu koy euh, kii mais xam nga ne tey jii nii bu problème amoon kenn du ko wax informaticien bi c'est le conseil constitutionnel. c'est Mamadou Badio Camara encore que Mamadou Badio Camara am xamul informaticien euh, du du informaticien ñi muy liggéey également on ne sait jamais qui sait peut ci diggante bi jot nañ leen former wala jox leen outil. yi leen permettre former former waaw Badio ak ñi ñu àndal non non ah on sait ah non il ah, euh, euh, xaw ma euh, ci As Babacar laa ko déggee xaw ma nee na dañoo dugal bu taxaw. Idrissa Seck en tout cas daal non non non c'est ma Guèye laa mu ne ko ñu ne mënuñu ñun mën nañ leen andil xale yi nga ne ñoo ñu ko defaral ñu tijji leen parce que ñoom xam nañ maîtriser nañ affaire bi donc y a y a y a la question. euh, informatique qui est dedans. mais justement parce, parce que euh, Yatasaay par exemple Yatasaay dafa am ñaari région yoo xamante ni fichier bi mënu ko tijji. ñaari région ñaari région yoo xamante ni fichier bi mënu ko tijji ñàkk a mën a tijji boobu noonu est-ce que erreur informatique la ci clé bi ñu ko jox est-ce que les clés. Euh, amul benn problème virus nangam nangam. Hmm. parce que boo demee ba euh, nga ne remplir nga dem foofu ñu ne li nga remplir mënuñu koo tijji c'est problématique. léegi fichier physique bi moom. waaw lu njëriñam finalement kon. non en les deux sont cumulatifs attention. Oh, non parce que bu fekkee li ma comprendre mooy ne bu ñu exploité wul kon fichier électronique bi mënuñu xalaatagum. enquête physique ah si si si mën na c'est-à-dire ñaari pay ñaari yëpp ñoo obligatoire léegi bu benn yu baaxee bii baaxul. Hmm, ah. kii c'est-à-dire les deux sont dañ leen di exploiter de manière cumulative bi ak bee ci yem. d'accord ah. kii di Aliou aussi. bi nekkoon AFP génn moom it. Hmm. ni candidat moom it. moom du dem du dem du dem mënul woon dem mënul woon dem. <laughs> Pape Moussa dafa mel ni déjà. non il est maire il est maire nest pas. oui de de de sa tund yooyu sa tund yooyu la. waaw seen côté yooyu la dëkk. Notto Diobass. xam naa en tout cas seen côté ah, yooyu noonu la côté Mboro xeet yoo foofu noonu daal. mais à part là-bas. politiquement. si tu faisais micro trottoir gars yi ko xam. nekk na ministre de tourisme lu yàgg nekk na nekk na mais boo génnoon def micro trottoir sur dis sénégalais set yi duñu xam Alioune Sarr hmm. ah oui donc euh, ce n'est pas surprenant c'est-à-dire fi mu toll nii nii nii nii nii moom hmm. euh, bombe bi Idrissa Seck la doonagum rek mais man man man par exemple il ne me surprend pas ah oui ah oui et maître El Hadji Diouf qui doit régulariser aussi là aussi ça xaw na xaw na doon kii mais bon en tout ouais. cas Alioune ne me surprend pas oui mais maître El Hadj Diouf yow jëloo ko woon au sérieux non maître El Hadj Diouf ñeneen ñi aussi. xaw na laa bett. non si nee yooyoo ci bette. ba am 38 mi presque. looloo ci yooyoo ci bette ci ay parrain. yooyoo ci bette maître El Hadj Diouf Idrissa Seck mais yeneen ñi si des yëpp coolul ba léegi rek. Hmm. ah mais. kan Pape Djibril ngi koy xaar. 39 bi. <laughs> moom bu ñu ko disqualifié du ma bett de. ah oui ah Euh, dafa am. plus forest la de bu fàtte. waaw plus forest la justement. bu dee minimum bi romboon na ko kon. donc kon moment bu muy doon plus forest. damay fàttali ne man moom mii euh, laa yóbbu ci assemblée. bu doon bu doon Sénégal bu nekk day am député. man sama député Pape Djibril Fall lay doon. moom nga woteel waaw. Euh, léegi léegi bi mu fa taxawee saa ay taxawaayam la ma doon xaar ci moom defu ko. ah, ah non non non non Euh, benn métamorphose politique boo xamante ne mooy loolu daal ça ça me surprend moom it s'il est recalé dès le premier tour du ma bett ah oui ça ne va pas me surprendre sincèrement. non loo koy reproché. non ko dara. soo nee man maa ko voté li taxoon. ma voté ko nii tey jii nii bu ma ne woon kaay ma parrainé kaay ma parrainé ma du ma la ko parrainé. ndax la. parce que taxawaayam la ma doon xaar ci moom dafa varié. lan la dafa varié fa ma fa mu nekkoon. ba ma voté loon ko. fa mu nekkoon ba ma ko doon soutenir. mais taxawaayam. ci askan fan ci taxawaayam. nan fan ci taxawaayam ni mu doon waxee. ba tey mu ngi ci askan wi. déedéet. ba tey mu ngi askan non gisatuma loolu. man maa ne la gisatuma loolu. je ne vois plus ça. c'est-à-dire le Pape Djibril Fall bi nga xamante ne xamoon nañ ko. ba ne kii bu taxawee assemblée nationale ak taxawaay bii day am solo ci askan wi gisuñu ko ci assemblée nationale. est-ce que suivre bien sûr je l'ai suivi je dafa dafa dafa dafa dérapé carrément fi mu newoon fa ma ko doon xaar man gisuma ko fa man mi nga xamante ne euh, dama ko doon défendre défendre sa cause ci réseaux sociaux yi lu nekk nga ci doon dégg mais tey jii nii ña doon wax ils ont eu raison sur moi. Pape hmm. Djibril Fall dafa dérapé. oui donc. Euh, li tax nga bëgg nga ne yow waaw bu dee ci yow nga ko. non parce que du am pare non ci man ak ci ñu bari. Pape Djibril Fall daan ñëw euh, dans les manifestations de l'opposition il bénéficiait de du standing ovation dernière bi mu mujj dañ ko doon yuuxoo. waaw ah, parce que ce sont les mêmes sénégalais. non ay yu changé. non ñi ñi bokk ci Sonko la booy. Sonko ce sont les mêmes sénégalais. ñi ko doon tàccu. ñoo dem ba gisatuñ mu war a ñu tàccu ko parce waxul loolu la ngeen sànni ko. déedéet déedéet wala boog wala boog euh, àndut ak moom la. mais bu ko neexee. mais problème bi du ànd ak Sonko wala ànd ñàkk ànd ak Sonko. est-ce constant ou pas. foo teg loolu. kenn kenn man personnellement reproché wu ma ko loolu. dama ko reproché manque de constance. la ñàkk constance maanaam li mu nekkoon ba sénégalais yi naw ko ci wekk ko ci ba yóbbu ko assemblée nationale loolu la teggi di wax wax yeneen yoo xamante ne saa mais c'est-à-dire l'essentiel day nekk nii Pape Djibril Fall di tirer sur d'autres choses notamment sur waaw mais bu la position bi nekkul ci dëgg nag. waaw du leen ko je suis mais ban la fan la nekkul ci dëgg. non mais li nga non mais ah c'est-à-dire tey jii nii kuy taxaw di tirer sur l'opposition te gis ki nga xamante ne moom la askan wi jox euh, le contribuable jox leen ñu dénk leen euh, santé éducation lépp lép lépp lépp ñu jox leen ko yow nga bàyyi fa ñooñu di tirer ci ñoo xamante ne. da faa bàyyi. Pape Moussa Pape Moussa mais xam nga waaw euh, léegi léegi man man la man yëpp laa doon suivre mais man nag man nag dama ko doon suivre xam nga la moo tax parce que 2017 dama voté Ousmane Sonko mu dem assemblée nationale dama koy suivre man mi mu jox man mi ko jox sama man moom ku ma jox sama carte dama lay suivre moom hmm. waaw dérapé wul 2017 ba kon da am yaqin ne. bu doon bokk na ci li si dama koy. reconduire vraiment looy tuddee dérapage. mais dérapage mooy. li nga boo ma laalaloon benn wala ñaar na Pape Pape Djibril kat. Mhm. lii bokk na li taxoon man ma ne kii kat jar na mu dem assemblée nationale. représenté ban ban ban ban ban proposition de loi nga gisal Pape Djibril Fall. oui mais sincèrement de loi. oui un député day def loolu. député moom mooy euh, voter des lois. contrôle de l'action du guvernement nga gis ci contrôle de l' action du gouvernement bu Pape Djibril Fall posé évaluation des politiques publiques ban évaluation bu profonde nga gis Pape Djibril Fall honorable député teg ko mais ñetti rôle yooyu noonu mooy rôle député loolu boo ko wàccee saa yi échec nga hmm. mais deux mille euh, vingt deux wala euh, lañ la def député. waaw deux mille vingt trois deux mille vingt quatre yaa ngi ci présidentielle fàtte nga sax mandat de député bi. Ah, ah. <laughs> donc euh, <laughs> maa ngi maa ngi doon gis euh, ay euh, interpellation yoo xamante ne député yi ñu ngi koy defal ministre yi fay jàll mais force est de reconnaître que Guy Marius Sagna a été beaucoup plus déterminant en tant que député il a été beaucoup plus présent en tant que député député yow contrôlé loo wuñu la opposition bi yow évalué loo wuñu la <laughs> les stratégies de l'opposition dañ ne la contrôle du gouvernement boo ko fa bàyyee di contrôler leneen échec nga. non mais sur le